dalee nag jàmm ci seen rubrique culture tey nag dinañ wax ci festival international bu court métrage édition bu festival international de court métrage bu Dakar ñu gën ko Dakar Court daal nañ ko altina fes centre cinématographique canal Olympia Teranga cité teewaayu autorité yu mag ak it ñi yëngatu ci wàllum fukk ak film nag yu ci Sénégal ak ci bitim réew jongante waaye itam ki jiite festival du réalisateur bi di molikan Dakar volonté bu association cinéma rek mëna a li nga moy liggéeyam ko ci jeune créateurs yi ko ci format court métrage nga a day ëmb ay ñu am talent waaye tamit nga fekk mu mëna ëmb valeur yi nga association cinéma rek ak institut français de Dakar ñu ci yëngatu saa su nekk ndaxte jàppale ndaw yi nekk na benn liggéey bu am solo la euh, di festival bu ñu court de Dakar ku nekk ci yéen dama koy wax rek maa ngi leen di feddali sama kóllëre ak sama cant si yéen ak li ngeen ñu gunge ci liggéey bi ci première édition Dakar Court. Participation massive à la tenue de cette première édition de Dakar Court. Ambassadeur France fii Sénégal Christophe Bigot moom itam fekkee cérémonie de lancement bi di wax ni que ni la Dakar am benn festival bu nga xamante ne ni dañ ko rek lii di court métrage. Je crois que c'est très important que Dakar jàll la Dakar am festival am jëm ci film court métrage fii ci Afrique am nañ lu mel ni FESPACO bi am ci Ouagadougou am ngeen tamit euh, festival bu Madagascar waaye tamit am nañu Carthage bi am ci Tunisie su fekkente ni dafa jëm uniquement ci court métrage amatul euh, sens waaye festival bi dañ ko jégle rek lii di court métrage lu am solo la ndax Sénégal am na cinéma bu am qualité jotoon naa TV cinéma FESPACO bu Ouagadougou ci at ni ñu weesu Sénégal jot na jël raay yu bari jotoon na nag ñu amal ben événement fi bi nga xamanteni day euh, jëm ci walum tagat ndax té dinañu gis euh, fuk ak ñeent court métrage waye tamit euh, dinañu tagat ñi nga xamanteni ñom lay yëmu ci cinéma les cinéastes de demain ci noonu Dakar ko mi ngi jox dig dajé cinéphile ni ki samedi fukki fan ak juróom ci weeru décembre fé ci canal Olympia ngir xam yan wala ben ci fuk ak ñent film yoy nga xam ñu ngi juggé fi ak ci bitim réew kan moo si nar a jël ñeenti prix yi nga xam ne prix bi ci gën a mag ñu ngi ko duppee ki nga xam ni moo dooroon li di Résidac muy Annette Mbaye Derneville ñu jàll seen actualité culturelle Le toll ci ñetti fan équipe bu film bi di Yawo amal nan ay projection avant première fi ci Sénégal ci téwayu acteur bi di Omar Sy réalisateur bi di Philippe Godot ak acteur bu ndaw bi di Lionel Bass nga xamné tabbi tàbbi nañ ko ci lu toll ci téeméer ak ñaar fukki candidat ngir sargal dëkk yi nga xamné japp nañ ci le film ñom amal nañ projection plein air fi ci Saint-Louis Diofior fukki fan ci wéru décembre ba nga xamné ne bisu bi ñu amalon fukki fan ak benn fii ci Grand Théâtre National bu Dakar ci téwayu Youssou Ndour ak ambassadeur bu France ak yeneen i autorité beneen xew-xew ñel na festival du film documentaire bu Saint-Louis nga xam ne moom it ubbi na niki altina bi ñu génn juróom-ñaar fukki film jugee nañ ci résidence d'écriture yi Africadoc ak it master de réalisation yu documentaire yi nekk fee ca université Gaston Berger bu Saint-Louis daal dinañ leen di présenté fee ca place Faidherbe ca institut français wala sax château Andar ren jii di juróomeelu édition bi ki di réalisatrice sénégalaise daañu delloo njukkal ci pàcc bu ñuy tuppee sargal dok lu jëm ci seen agenda culturel la benn rencontre professionnel ci les métiers du cinéma moom it dina am ni ki ajjuma fukki fan ak ñeent ci weeru décembre fee ca salle de bu institut français mbokk yi li nag lañu leen andiloon ci seen rubrique culturelle bu alxames di leen jox dig daje beneen alxames laata loolu di leen ñaanal kenn dal ak jàmm